ginnaaw bi ñu sant yàlla nag di judd ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant internet di leen gërëm bu baax ñu ñuy topp fii ci Leewtoo TV a fës ci bopp xibaar yi tous les jours am contentement ak mbégte naa la. Ndeye la maa ngi nuyu bu baax a baax suñu mbokk internet yëpp dañuy topp ci Leewtoo TV wante maa ngi nuyu bu baax waa Diourbel sama dëkk di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam. asalaamaaleykum nuyu naa la. Ndeye Mbacke naa la te loolu nag comme ni ñu koy defee toujours huile j'adore boo andi may seen huile de la reine chaque jour nee naa leen loolu noonu mooy loolu gën ci loolu nii loolu bu mën ci diwlin. di diwlin ba nga xamante ne bii ku jàppanteeg moom sa biir waañ doo ko réccu jigéen ñi jàppanteeg ñoom xam nañ ko bu baax a baax. mu ngi noonu mercredi 10 mars 2021 journal sunu lamb xëy ci xëtu mu nekk accusation sur le retard sur France 24. Malick Sall ministre de la justice ces lutteurs qui sont sortis sont des lutteurs te naka noonu nag mbër yu bari naqaru nañ ko àdduna ji ku ci mel ni Kalma Ndour ak Baye Mandione ñu dem déglu ko te ñëwaat. waaw ministre bi dafa génn wax ni mbëru làmb yi ñoo doon génn di di toj affaire yi affaire yooyu loolu moom dëgg yàlla rafetlu ma ko quoi wax dëgg yàlla ndax ñun dañu bëri làmb lan de làmb ji bu tëjoon fii ba en vie teewul dinañ lekk dinañ naan yàlla moom moonu moom moonu yor ndax bakkeen bu yàlla bindee bu nekk rek yàlla moo lay sàmbal boppam biir bi nga yor yàlla moo ci def looy xewloo kon nag làmb ji bu tëjee bu tëjeeg lépp lañ ci boole yemale ñu ba làmb gi tëjee yàgg na mais ñu ngi toog ànd ak suñu dignité ndax mbas mi fi jógee mi coronavirus président Macky Sall ñëpp la jàppale ñëpp képp ku yëngu dara ci Sénégal def na participation am ci yow moo xam ñëpp ba mu des littère yi mbëri kese lañ jàppalewul cent franc ci coronavirus bi nga xam moo ne ci dëkk bi kon nag bu demee nii ñu arrêté Sonko. askanu Sénégal daal di génn ci tale bi di ñaxtu am lu leen metti yaakaar naa bu ñu tolloo fi dina war a defal xol ñun ñëpp mais warunoo jël mbir mi di ko génn waaw di si lancer benn appel rek euh, ndax dégg ngeen li ministre de la justice wax démb euh, si télé international France 24 euh, wax ju ñaaw jëmale ko si de la lutte sénégalaise. bu nekkoon sax télé national la ko wax euh, mu neex wax mais international la ko wax parce que dina am sama gis-gis dina am ay sponsor yoo xamante ne international yoo xam ne dañoo ñëwoon di jàppale làmb mais bu ñu dégloo lii li ministre euh, de la justice wax démb dañ xaw a jàpp seen bopp wala dinañ xaw tey seen bopp mais affaire li ñaawlu nañ ko rafet rafetluñ ko si benn côté mu ngi noonu ah yéen a ko déggoonoon jaajëfal naa leen bu baax ah noonu la ci mbëri naqar ñoo tir groupé sur le ministre de la justice ku ci mel oo Gris Bordeaux annonce une plainte contre lui a Babacar. gannaaw ba ministre bi yëkkatee kàddu yooyu nga xamante ne bii teg na ko ci kaw mbër yi. ne euh, manifestation yi amoon ci fan yi mbëri yi ñoom ñoo ko jiite woon te mbëri yi ñoom ñoo doon manifester gannaaw ba ñu toogee atum yàlla li ma kenn gisu ñu bëre euh, ministre bi yëkkati kàddu yooyu fële ca France 24 kii di Gris Bordeaux nag nee na moom day porter plainte ministre de la justice ndax kàddu yi mu wax tegu ko fenn. dëgg la Mbaye Babacar ni ko waxee toujours ci tir groupé yooyu Gris Bordeaux dafa génn euh, wax ci suñu làmb moom moo wax nee benn euh, plainte lay annoncé contre Malick Sall bi nga xam ne nii moom mooy ministre de la justice après bi mu defoo sortie ci France 24 ne mbëri ñoom ñoo waral violence bi amoon ci euh, dëkk bi temps yi Gris Bordeaux nee na nag ko porter plainte ndax seen avocat moo leen wax mën na nekk donc ñoom voie normale yu ñu am yëpp pour euh, contrer wax jooju dinañ ko def Gris Bordeaux moom mooy président association nationale des lutteurs en activité du Sénégal mu ngi noonu mu mel ni axlu làmb ñëpp a ko ñaawloo Mbaye Babacar Khadim Gadiaga nee na c'est une manque de respect. Khadim Gadiaga moom nga xamante ne bii moom tamit euh, ku ñu ci làmb ji moom nee na lii dafa mel ni euh, ñàkk a respecté ñiy yëngu ci làmb la rawatina mbokki mbër yi. dëgg la Mbaye Babacar Khadim Gadiaga moom mooy président d'honneur association mbër yi moom nag mu wax ne ne surtout ministre bi dafa manqué respect li mu wax manqué respect la lutteurs yi nee bu ñu ko déggee euh, mbetteel la ci am waaye nag nee na bi. rectifier ti euh, li mu wax nee na ko rectifier euh, wax ne euh, li mu wax daal mu xool meneen nu mu koy waxee ba du mën a attaquer mbëri directement. te la ko noonu kii moom daa gis ne dafay war a jóge rek la ñu wax. waaw Konaté xamante ne bii moom moo yor yoon ci biir réew dafa war a tekki ndombal tànkam ndax tuumaal bi mu tuumaal ak lu làmb metti na képp kuy yëngu ci làmb. dëgg la Baye Babacar euh, Konaté Ahmed Konaté moom mooy coachu écurie Kaay Baax moom nag euh, comme ni nga ko waxee nee ne Malick Sall dafa war a démissionner ndax wax ji mu wax dafa garaaw trop nee na accusation yu garaaw la porté ci mbër yi te loolu euh, te nee benn mbër gisuñ ko mu ñuy nekk ci génn di sànni ay xeer wala ñuy def ay violence te donc ministre li mu wax dafa war a démissionner suñu euh, dégloo ko Konaté. mu mel ni ministre bi li mu wax métti na képp ko yëngu ci làmb rawatina mbokku mbër yi. métti na leen euh, Modou Lo def na benn réaction démb ci Leewtoo déglu ko ci audio yi ak ñoom euh, Max Mbargane Khadim Kadiaga ñoom ñëpp def naan ay intervention ci Leewtoo TV loolu day wane ne métti na leen bu baax a baax. bokk na ci li ci gën a nit ñi mooy fa mu waxee France France ga mu toll. fa grand France fa France dama ko waxee maanaam. ca réewu tubaab bi opinion internationale la loolu. dëgg la mais lu tax xam naa mu waxee ko foofu xam na ne buy wax France 24 indirectement mi ngi touché public bu étranger français bi mi leen di touché te bu leen wax pour que mu expliquer li xam Sénégal bëgg ci dédouaner état bi wala euh, waa nguur gi loolu je pense que loolu rek la mënoon euh, wax. pour mu pour mu déddawaane APR wala wala gouvernement bi xam naa looloo tax mu waxee noonu mais xam naa ne posé wul que ne bu ko waxee dina am coow lu mel ni te loolu nag ARS àgg na ci mu ne seen diffé seen une diffamation à l'encontre de mu jàpp ne wax dëgg ay postes yi nga ne mooy taxul làmb. li wax loolu moom mooy Khalifa Niang nekk secrétaire général bu ARS. nee na li nga xamante ne bii moom la ministre bi wax euh, ay sos la dafa tuumaal làmb wante li mu wax nekkul lu am. dëgg la Mbaye Babacar Khalifa Niang moom mooy secrétaire général AREELS AREELS moom mooy association de responsables de des écuries et écoles de lutte du Sénégal moom nag li mu wax nee na euh, li ministre wax euh, dara du ci dëgg te ay sos la nee na c'est une diffamation à l'endroit des lutteurs ay dafa sosal euh, mbër yi te loolu mbër yi mérite na plus de respect. ca naka noonu dañuy jaar ci ñaxte mooy Gaston Mbengue Gaston Mbengue ba léegi promoteur Macky Sall a compris. le message de la lutte. Euh, Gaston Mbengue mooy yëkkati yooyu la kàddu na na président baax baax li nga xamante ne bii mooy euh, euh, yóbbante wàll làmb. Gaston Mbengue nee na après réaction Gaston Mbengue nee na Macky Sall comprendre na message bi jeunesse bi envoyé ci ci durant manifestation yi waaye wax na également ci sortie ministre bi lu ci wax mooy que bi dafa def erreur benn sortie maladroite la def Gaston Mbengue moom wax jooju la indi par rapport ak sortie fi amoon. day desandi ba léegi ak Gaston Mbengue journée bu mu war a taxawal le 4 avril incha allah Eumeu Sène Eumeu Sène Lac de Guiers maintenu pour le 4 avril couvre-feu allégé mu mel ni am nañu yaakaar ne làmb ji dina ubbi léegi léegi. waaw am nañu yaakaar bu baax ne làmb ji dana dana ubbi gannaaw ba ñu ba ñu yokkee couvre-feu bi yóbbu ko ba zéro heure te it vaccin di vaccin bi nga xamante ne bii andi nañu ko mu aar li nga ne bii moom mooy coronavirus Euh, mi ngi fi mën nañ jàpp ne làmb mën na commencé waat ci anam bu mucc ayib. dëgg baax Mbaye Babacar journal suñu làmb moom moo def analyse boobu ginnaaw bi mu euh, ba nga coow xalaat Gaston Mbengue Gaston Mbengue ne combat Lac de Guiers ak Eumeu Sène maintenir na bu 4 avril léegi nag Gaston kii journal suñu làmb nee na ginnaaw ba couvre-feu bi allégé comme maanaam jëlee leen ko ci 21 heures yóbbu ko ba 0 heure vaccin Covid bi tamit am na euh, violence yi wala manifestation yi arrêté journal suñu làmb ne lii lépp war na tax daal ñu mën a am espoir que làmb ji léegi mu ubbi réellement. mu ngi noonu euh, Mame Ass Mbengue président CDG de Tivaouane nga di décider de quitter la lutte définitivement. Mame Ass Mbengue moom moo nekk euh, président CDG bu Tivaouane maanaam euh, la moo jiite làmb ji foofu noonu ca Tivaouane mën naa ne moo fay président CNG. comme naa ne li mu bëgg fi mu toll nii mooy bàyyi làmb ci définitivement ndax loolu mooy bëgg-bëgg. dëgg la may Babacar comme ni nga ko waxee Mame As Mbengue moom mooy président CDG mooy comité départemental de gestion bu Tivaouane moom moo fay représenté CNG moom nag nee na dafa décidé quitter définitivement làmb lu tax loolu mu ne nee moom dafa xam ne foofu ca Thiès dafa am na am na ñoo xam ne ni ñu ngi ñu ngi ci fi mu jiite mais dafa leen di déranger. loolu looloo ko naqari tellement moom mu ne léegi daal bëgg na quitter définitivement euh, làmb wax na également ci falum Abibou Diallo bi nga xam ne ni moom la teg ci bopp CRG bu Thiès nee amul ci amul ci mbetteel euh, euh, nouvelle bu baax la ndax ñëpp d'accord nañ ne Abibou jàll bi mën na jiite CRG bi. mu ngi noonu Bira Sène président du CNG officiellement l'âge de la retraite c'est à ans mbay ko mu mel nii rek am nañu seen yaakaar tas ku ci mel ni Bombardier yaakaar naa bu fekkee 45 ans lañ ko def lycée ak bu néew rek moom du bokkul ci làmb ji. waaw foofu nañ ko jàpp comme en attendant day mbàkke mais mën nañoo am yaakaar ne mën nañoo dem ba yokk ko sax mais Birasène li mu xam ne moom moom nee na euh, at at yi mu war a toll pour retraité ci fi ko takk fi mu toll nii ñeent fukki at la ak juróom mais am na yaakaar ne mën war nañ koo mën a yokk asal. dëgg la Baye Babacar la li nga ko waxee noonu la sax Gracien daf ne officiellement euh, l'âge de la retraite c'est quarante cinq ans maintenant lay wax actuellement présentement lay wax la euh, foofu lay waxee quoi mais nee na également jox nañ ko mission comme pour que mu relever wala mu augmenter âge boobu ba quarante huit ans nee na ñu ngi ñu ngi koy étudier dinañ xool yan voie ak moyen la ñuy def pour que ñi xam ne nii am nañ quarante cinq ans ñu mën leen yóbbu ñu xool leen ci ay médecins pour que ñu xool si ñoom mën nañ dépasser. quarante cinq ans di bëri waaye objectif bi moom mooy ñu yóbbu âge bi quarante huit ans jëlee ko ci quarante cinq ans yóbbu ko ci quarante huit ans. waaw maa ngi noonu loolu moo nekkoon li nga fas ci journal suñu lamb dañuy dem a li nga xam ne mooy journal record Mbaye Babacar Malick Thiam la moom mu ne si à la limite une instructe mu jàpp ne li ministre bi wax rek. waaw doy na waar wallaahi ñaaw na trop ñaaw na mi ngi noonu moom Malick Thiam nekk reporter sportif. Euh, nekk journaliste sportif euh, moom li mu wax mooy nee na ministre bi li mu wax daanaka saaga la ci axlu làmb dëgg la Baye Babacar comme ni ko journal suñu làmb defee record également jël na micro am tàllal ko waa làmb jox na ko nag Malick Thiam Malick Thiam di benn journaliste sportif bu ngaa ñu ci dëkk moom li mu xam nee ne c'est à la limite une insulte nee ne sorti ministre bi jë eh, soriwul lool ak saaga loolu la wax nee na sorti bu ministre bi en plus nee na sorti bi eh, teguwul ci dëgg normal eh, réellement te nee na ministre bi également comprendre le message bi nga xam ne ni jeunesse bi ñoom moom lañ envoyé ci durant manifestation mu mel ni tey journal yëpp yi bind ci làmb ci sorti ministre bi la ñu wax waaw daf leen a benn ndax ndax ndax ministre bi nag dafa laal laalaake daf leen laal bu doon wax ni dëgg la sax mu mu xaw a neex neex a nga nga ko kii nga mën ko jël mais euh, en réalité du du dëgg yi buñ ko mënee waxee noonu. doy na waay. gënoon mbay gisoo ne fi mu ko waxee sax baax na. waaw ak moment opportun ak instant bi fi làmb toll. waaw nit ñee ngi jaaxle atomu yàlla kenn bëriwul. ak moment bi mu ko waxee làmb crise. doy na waay moment bi mu ko waxee man remarque bi ma def mooy que euh, ñoom dañu waroon a gën a gën a gën a motiver ahlu làmb ndax euh, booy xool Covid bi ñëpp la impacté à secteur yëpp la impacté rawatina secteur bi di làmb nag te euh, xool secteur yëpp la jox ndimbal secteur yëpp na président yëkkati xaalis jox leen secteur yëpp a def mars wane seen ñaxtu ba mu des làmb làmb rek la ñu gis asan mbër yi kenn doxu ci doxu ñaxtu au contraire sax ñoom dañu génnee seen xaalis seen poche jënd ay masque jënd ay gel di jox askan kon nag bu ñu yëkkatee kàddu yi teg ko seen kaw dana dana metti trop ci ñoom Maxime Badiane daf ci wax lu am important moom toujours te démb waxaat na ko ci Leewtoo a wane loolu doy waar muy noonu nag gën jaajëfalaat bu baax loolu moo nekkoon allah bu ci yàlla àndee ëllëg ak jàmm di Mbaye Babacar di la remercier di remercier waa Linguère comme d'habitude Mansour euh, Yacine Ousmane yéen ñëpp leen jox dig daje suba jàmm. wala di leen jaajëfalaat bu baax di leen kontaanama ak mbégte jàllale ak yéen internet yi chaque jour fii naa ñi ñuy topp fii ci Leewtoo TV chaque jour gis nañ commentaire yi ah, di nuyu waa Afrique du Sud waa Europe di bégg bu baax a baax di nuyu sama cameraman Yacine Ousmane Fall di nuyu borom kër gi Pape Thialis Faye ah mistara maa ngi lay bëggee bu baax a baax di leen jox dig daje ëllëg fii ci Leewtoo TV incha allah.